aussi. Mmh. n'est-ce pas j'ai <laughs> maa ko xam dëgg dégg tubaab. xam naa li ma la wax. maanaam dafa ne tegal mooy li Aram wax tegal leen ma affaire yi bu ñu ko tegee ñu xool et puis li possible ñu def ko c'est limpide entre parenthèse dafa am nag ñoo xam ne fi mu ne jamono ji danoo ànd ak waxu waxu xam boo tiitee da ngay wax rek mhm. les rapports. suivant les rapports. Les, de les rapport, conséquences des rapports. Partant de rapports pour des conséquences. Mais les semences rapport, après rapport. Semences, rapport, roulé, de récolte. Mm -hmm. Vous récoltez ce que vous semez. Oui. Et en récoltant ce qu'on a semé, si c'est bien, alhamdulillah, si c'est de la paparasse dévergondée, de déperdition, oh. vous avez peur aïe aïe c'est ce qui arrive à certains kii xulil xulil ñoo la wax wax wax wax wax wax wax wax ñoo la wax rek li noo wax nag yeneen da nga da nga ne wàññi wàññi leneen ngeen xaar wàññi leneen ñu ne ok d'accord Pape Malick Ndour nee na mën naa ne de xulil wàññi dafa war a am parce que nit ñi dañu ko xaar parce que ci biir campagne bi on a parlé des conditions de vie difficiles des Sénégalais mhm. oui dañoo war a wàññi Passement loolu waroo ko wax de kaay ma wax la li mu wax kay non parce que yow soo soo ma waxee loolu rek d'emblée lan mooy ñëw sama xel moo di ne moom ci équipe bi fi nekkoon la ne. kon daf ñu bëgg a wax ne mënoon nañu wàññi ñoom ñu toog ci. tontu na ce qu'il dit c'est paradoxal par rapport ak li nga xam ñi fi nekkee lañu war a ñu wàññi parce que ñoom xëy nañoo ñoo gis fenêtre yu ñu mën a jàpp def ko. mais moom mënu bokk ci ancienne équipe ba pare di wax loolu. Pape Malick nee bu ñu renoncer à tous les impôts et taxes sur les produits importés. de grande consommation lu tax wax ko président mën naa ne mu ne ñaar xaaral mu loolu tontu nañu mu ne subvention mhm. aux importateurs pour atténuer les pertes commerciales découlant de la fixation des prix à un niveau plafond trois mu ne surveillance accrue du marché quatre focus sur le prix de l'énergie qu'il faut maintenir à un niveau raisonnable mu ne c'est pas difficile c'est du classique et une pratique courante léegi nag am ñu koy laaj waa li ngay wax nii xanaa tey nga koy soog a xam mu ne déet def leen ndànk réponse bi dafa simple ñun yàgg nañ koo def te am na lu koy firndeel mooy ci mhm. espace UEMOA ku bëgg preuve à l'appui demal xool Sénégal fan la classé mu ne farine trois cent soixante dix kilogrammes riz mu comparé ko ak Burkina Côte d'Ivoire Guinée Mali Bénin pour wane ni Sénégal mu ngi ci fu baax fi soo ko comparé réew yi ku bëgg nag mën nga caa yegg lii la indi comme réponse démb bi mu est kon yow moom mënuñoo wax ñoom bi ñu fi toogee pendant douze ans ci seen magistère benn yoon la ñu wàññi yokk fukk yoon ak juróom-ñaar. waaw loolu leneen la. léegi Pape loolu da war a ñoom wàññi ñaar dërëm. yokk fukk. sans gêne non fi ñuy wàññee ak fa ñuy yokk ak ñoom lan moo leen ko mais mais moom nañu jëlal waaw may nañ la ko jëlal moom nawet yenn yi tamit mën na merloo nit. waay non may leen ma lii. ayca. kan Euh, Pape Malick Sall yebu Sénégal yi Passemane mi mooy yeb moom muy euh, yottali ay waxam. Euh, mën na ma wax de. non on on discute on débat. c'est vrai. Pape Pape Malick. mu ngi kaa Pape Malick kan nga wax. Ndour mu ngi kaa nuyu mu ngi kaa nuyu ba. léegi je disais. je disais fi ma nekkoon la. parce que man Passemane dama koy topp ba mu sës man dama yor ay données moo tax damay bëgg rek. waaw loo bëgg a wax loo bëgg a wax. c'est important. dama àggale. boo daaneelee rek mu ñëw ci données. may nañ la ko. non dafa vous me perturbez. moo la dagg de c'est vrai ah, tu perds le fil c'est vrai. Ah. on moo la dagg de dafa waaye ñu delluwaat ci mango ba. parce que Pape yow mi yaa yàq affaire bi. dégg fi la daggee sax fi nga ko ah, daggee ci wax yi. bon Pape ku bu nuy defar mu ñëw naan kër gi ni ngeen ko war a defaree da dañ ko war a bumax. merci tu entends ça. Hmm. voilà nga toj kër taal daay yow waroo wax da war a taxaw seetaan. tu comprends maanaam yaa taal daay bi ñëw di wax bu la non non taal nga ñu ne yaa ko taal indi pénalité yàq su match ñu génne la match léegi nga ñëw naan bàyyi ko ak butéel bi ñëw ñëw naan non non non c'est que bu ngeen defee nii waaw bu defee nii bu non yaa taal ba pare naan bu ngeen defee nii dëgg la le régime apériste n'a pas droit à la parole xam nga am hélas on vit en démocratie il va falloir les supporter c'est comme ça bu nu waxee daan dégg mais mais APR Benno Bokk Yaakaar amul lu nu wax ci réew mi par contre am nañu droit wax ci nag parce que dañ cee war a wax nag ñoom fi la ñu bokk mais man personnellement je peux pas les écouter ak respect bu ma am ci ñoom humainement je les respecte humainement on les adore même humainement mais mënuma leen naw ci wàllu liggéey quand je traverse may gis BRT damay mere APR dama naan ñii yan façon xalaat la ñu amee. BRT ba mais BRT c'est vous importez soi-disant un million de tonnes de riz c'est ça cent mille tonnes de blé mmh. et cetera vous dépensez autant d'argent pour cela vous ne cherchez pas à être souverain sur le plan de l'alimentation vous prenez cent milliards nom de Dieu vous donnez ça à des Français vous dites je vais faire BRT pour décongestionner la capitale cette capitale qui existe comment par l'exode rural vous ruralisez une capitale en faisant quoi en développant le fort de densité ouais. qui est de 26 pour cent nga jël n sénégalais concentré le biir Dakar fekk buuxante ne non damay defar BRT ci biir foofu pour nit ñi ba 400 milliards yi nom de Dieu vous l'amenez à la vallée du fleuve wala vous refaites vous vous faites de sorte que vous faites renaître les vallées fossiles vous faites renaître le canal du Cayor tracé waat ko irrigation am ci Sénégal partout qu'est-ce qui va se passer mbayum noor ak nawet noonu de jë ñu bay carotte bay supame bay pomme bay lépp changer suñu dund c'est après qui va gueuler ici ngeen baal ma. ah non non non ils sont offusquants. respect par rapport internet dañ ma baal. non ah, parce que APR dañ ma traumatisé dañ ma teg psychose am na foo xam boo leen fa tuddee ci wàllu liggéey dama lay mere. Ah, waaw du mu exemple. espace bi ñoo ko ñoo ko bokk. APR ñoo rey ay sénégalais. APR ñoo def ay crime ñoo tëj ay sénégalais APR ñoo tiim sénégalais mel ni noo tam mel ni malaaka yu ñu yónnee. ànd ñooy toog naan non non Ousmane bàyyi ko mu wax waay laisse le parler jëlee sax garaaw nag de mm. yàlla moo ko def damay tiit nañu xeexee woon contre président Ablaye Wade à un moment donné di xataraayu parce que dañ doon jàppoon ne dañ tooñ Macky Sall ah. noonu lañ leen meree tey nu ko raw bekk suukar waaw may ko de may ah accord mais le naan ndox dama bu dagg d' accord s'il vous dafa am fu aram doon ñëw ci Pape Malick très rapidement paasan duggaat ci njëg yi ndax actuellement yaa ngi doon tontu deux secondes rek may ma ko Pape xam nga sànq Ousmane day wax ma ne ko bugguma di lim li ma yor yëpp secteur privé euh, national plus de deux milliards lañ leen yoreel deux cent mhm. milliards waaw euh, subvention bu ñuy defal Sénélec bi mhm. état bi def deux cent cinquante milliards ñaataa ngi noonu cinq cent cinquante milliards cinq cent taux d' endettement bi jege na quatre vingt pour cent PIB Sénégal. Mhm. déficit budgétaire de près de cent milliards. waaw léegi ma ñëw si benn euh, sànq bi ma koy wax prix essence bi fii déclic ci benn étude bu ñu def c' est disponible nga dem Algérie en avril deux mille vingt quatre essence bi mi ngi jar deux cent sept virgule quatre vingt sept cent sept maanaam. yeggul sax deux cent ak kii mm-hmm. dix francs Nigéria trois yëpp litre la Gabon cinq cent quatre vingt treize Ghana six cent vingt Bénin six cent quatre vingt Togo sept Burkina euh, Guinée yu teg tuuti ay Mali euh, nous avons mm-hmm. nga dem Côte d'Ivoire ñun comme ci lépp ñun dañoo bëgg Afrique ñooy jël paie. Mhm. essence bi di jël neuf cent quatre-vingt-dix. maanaam mille francs yu manqué dix francs parce que boo toogee dañu wax naa ñu au niveau Afrique. Mhm. boo comparé lii ci UEMOA def nañ lii mhm. wala laa noonu lañu ñu amee yu yées tamit ci yoo xam ne bu ñuy comparé pourquoi ñuy ne Dakar c'est une ville très chère ñu mel ni waa Luxembourg pour lan te amuñu avantage yu Luxembourg. nañu waxante dëgg. ce pays est cher. ce pays est très cher. non loolu mooy dëgg dakaar fii nii nga yor fi benn montant bi nga jóge ci àll bi ñëw war a faju Pape Ousmane bu nit ki ñëwul dal sa kër du am fu mu dal. Ah, ah, du am lu mu lekk. alors que c'est un petit montant ba la doon servir tey pour nga dépenser ko tu n'es pas en mesure de le faire. exactement mm-hmm. moom bu mu toog këram mu am possibilité gérer ay kiiwam besoin lu mu soxla mu yaakaar ne noonu la yombee si ñeneen ñi. on parle pas pour nous mais dañuy wax parce que dañu am ay mbokk ci réew mi dañu am ay nawle ci réew mi ñu xam leen. Mm-hmm. ñuy dund yenn yoo xamante ne ñoom li ñuy wax ak loolu wute na. loolu la euh, ñëwal ñëwal euh, jërëjëf. ñëwal jërëjëf merci pour l'équilibre. des mm-hmm. fois. c'est très important li mu def. merci pour l'équilibre des forces. waaw waaw en même temps nag gële nag aussi du insulte gële c'est mhm. crier et parler très fort. loolu mooy gële. gële du saaga. Euh, euh, Samb. Mhm. merci de préciser cela. ayca xulil. Samb Samb cours de grammaire. Samb waaw waaw waaw. bu la neexee na bu la neexee nga yokk ci IM trait d'union. BE accent aigu trait di d'union di CI. ah yaa ngi dugg nag ci li Pa Ousmane di benn. LE waaw waaw. oui ma baa ko defee. non la Pa Ousmane c'est important. non déggoo ma ne la IM. trait d'union BE accent aigu trait d'union uh-huh. CI trait d'union LE trait. <laughs> vertical point d'exclamation. Eh. soo ko boolee lay jox soo ko boolee. mais nag tu peux mais tu peux tu peux faire l'agencement des syllabes. kenn du ko def tey. ci mais parce que parce que du saaga du saaga constat d'appréciation d'un acte la. Mhm. aujourd'hui l'acte pervers versatile. oui. comme un burn-out. dramatique qu'on a vécu dans ah, ce pays qui sait qui sait leeral leeral ça s'appelle de l'insistance pour montrer la gravité de ce qui nous a été causé ah, comme tort ah, xam nga loolu moo la lan man nit ab affaire xam nga lan la ma ci am nit ab affaire xam nga lan la ma ci am lan nga ci di jàpp di julli yàlla rek a ma tiim mhm. di leen ñaanal ñu ne ci jàmm ak seen ay njaboot falaa mën a yem yem mhm. mais mais je peux pas moi je peux pas respecter l'irrévérence mhm. quand des gens arme d'autres Sénégalais contre d'autres Sénégalais ces gens je ne les respecterai jamais de la vie la ma amoon ci respect dañ na. loolu soo ko waxee ñu ñu ñu delloo la ko ne ñeen beneen camp bi tamit dañ ko doon def lan nga leen di tontu. beneen camp ban. non tu parles d'irrévérence. waaw yëkkati ay kàddu di jële ci benn sénégalais delloo beneen sénégalais. waaw ma ne boo leen ko waxee ñoom ñu jël ko opposé ko ci ne beneen camp bi tamit wax nañ lii moo tax ñu tontoo. loolu leen di tontu ñoom ñoom ñan ngay wax ñan ngay wax waa APR. ma ne APR bu la waxee lool ne am na en face ñoo xamante ni nii la ñu